intérêt wu rencontre yu mel nii bien que Modou xiif na lool <laughs> xam naa gis naa ko damaa convoqué benn réunion à 15 heures sama bureau moo tax li ci des euh, bon xëy na ko duñ ko parax paraxee mais dañ ko gaawal tuuti pour question yi nga xam ne nii ñu mën nañ cee indi ay ay euh, ay tontu euh, yiñ ci soulevé bari na buñ ko dee tënk rek. bokk na ci ñi nga xam ne ni moo njëkk jokk mooy conseil de quartier yi heureusement que am na quartier yoo xam ne ni jël nañ un peu les devants dañ leen proposé benn organigramme conseil de quartier boo xam ne nii mooy gën a yaatu gën a yokk compétence su conseil de quartier yi parce que ñun dañoo gëm subsidiarité mooy yow li nga mën sa moroom mën ko bàyyi ko moom mu doxal ko yow nga wuti leneen loo xam moom nga doxal maire bi am na ay question yoo xam ne ni daf ko war a wàcce ci conseil de yi mairie bi di gérer y affaires yu affaire humaine les questions de salubrité les questions de sécurité les questions d'éclairage public les questions de voisinage loolu lépp dañ ko bëgg organigramme bu bees bu nous bëgg pour conseil de quartier yi ñu ko conseil de quartier yi ñu daal di koy doxal ñun tamit lu ñu leen mën a gungee ci ay moyens ñu gungee leen ko ci ay moyens mairie bi mën dox yi lu ay coopération décentralisée yi nga xam ne vraiment euh, conseil de quartier Nous amul dooleem ñun ñu dem je vais proposer proposé modèle d'organigramme du conseil de quartier et ci la question de sécurité da rôle bu am Jakarta man vrai nous ñi wax nañ ni euh, toll nañ buntu bi nga xamné ni mom pour dugg ci dëkk Jakarta man ci lañ buntu sax ñi nga Jakarta âge bi ak li ñuy jëfandikoo ak fañ koy jëfandikoo loolu intervention yi wane na ko ñun yàlla dogal na balaa ñuy agsi ci maire yi amoon nañ benn initiative bu ñu jëloon 2017 octobre 2017 ñu tuddee ko jakarta ci yoon jakarta sur la voie ci ci concept boobu ci dañ leen formé woon ma ngay ah ci témoin ak balla tous les jakarta man centaine presque formé nañ ñoon en sécurité routière naka la ñuy taxawee naka la ñuy comporté woo boo gisee accident loo fay def boo fekkee nit ku jaaxal noo koy dimbalee ak comportement jakarta man bi ci biir société bi puisque dañoo demoon ba xam ni c'est un mal nécessaire dem na ba bokk ci élément wu société bi naka la ñuy def pour génne ci li nga xam ne nii moo positif li nga xam ne nii moo négatif ñu génne ko sànni ko loolu moo doon démarche jakarta ci yoon jakarta sur la voie mu en gilet casque ak gant ba pare la leen l'idée moo doonoon en son temps jox leen gilet yoo xam ne nii ki sont en rapport avec la plaque d'immatriculation oto bi bu Jakarta bi bu amee plaque numéro 10 gilet bi Jakarta man bi da koy sol mu am plaque numéro 10 au delà de moto bi yow boo tollee fële di nga xam ni gilet bële di ñëw Jakarta wu xombal la numéro 10 laa jël bu ma wàccee foo xam ne nii ci ginnaaw ci yoon wi dara dal na ma ci naa xam ni Jakarta numéro 10 laa jëloon. looloo doonoon idée 2017 bi ñu koy lancé yàlla dogal na tey ñoo nekk ci bopp mairie Khombole dañoo bëgg nag ci biir campagne bi joxaatat nañ leen tamit ay ay casque ak ay gants ñu bëgg nag wax dëgg yàlla ñun li ñu mën mooy di leen gunge mais am na loo xam ne effort personnel lay doon. bi ngeen ñëwee di ñu gis pour seen redevance yi ngeen war a fay ci saa si j'ai appelé le directeur de la sécurité routière mu ne ma jàpp leen yéen ak ñoom kañ ngeen bëgg ñu ñëw former leen pour que jakarta kenn ku ci nekk di am permis pour mën a dawal permis A1 bala koo am dafa am foo war a egg ci âge kon dañ la ci formation dañ la accompagner ci wut permis de conduire mais li laay war a suul yi képp ku xam ne ci biir bi koo xam ne ne amul âge bi amul permis amul plaque boolee leen ko gendarmerie ñu ñëw jël si pour que solution boobu mun ba gerta mën a mën bañ a tee doon bunt bi nga xam ne ni ci la saay-saay si jaar pour ñëw def bi nga xam ne ni moom la ñuy def gilet yi nañ ko commandé euh, plaque yi bërki démb rek waxtaan naa ci ak euh, soxna si mbëru ak secrétaire municipal bi ñu ngi commandé plaque yi dinañ ñëw Jakarta bu ci rek di nga am sa plaque dina wutal gilet ñëw na waaw ko waaw merci beaucoup voilà plaque yi agsi na ba pare commande naa plaque yi agsi na plaque yi dañoo bëgg plaque bu ci nekk Jakarta buy sol gilet bu leen bàyyi gilet yi ginnaaw casque bi ak gilet bi ci lañ leen di xàmmee gilet bi dañ ci def numéro plaque bi nga xam ne nii moom ngay sol kenn ku ci nekk mën nga am ñaari gilet pour bu benn tilimee nga fóot daal sol beneen bi ndax comme na ngeen supporté ay nit yenn saa yi pour ci loolu ngeen jàpp ko bu baax a baax a ay gilet ngeen koy sol régulièrement pour que kii jël jakarta taxaw ci mbedd mi du jël n'importe quel jakarta dina xam ne bii mu jël bu xombol la bii mu jël fay na ay taxam bii mu jël am na sécurité pour que dara bu ko jotee ci yoon wi mu mën a xam ni Jakarta numéro sàngam laa jël boo demee ci réew yu mag yi dañu am lu ñuy CCV capteur civique volontaire ci idée wu Jakarta ci yoon ñun noonu lañ leen bëggoon a def mooy ñoo xam ne nii ñu ngi ci mbedd yi di wër mel ni ay caméra xam nga xam bu amul ay caméra mais foofu dafa am ay caméra mais en dehors de caméra ay nit ay la ñuy jël def leen ay caméra boo demee ba gis loo xam ne nii jaaduwul ci saa si fi nga taxaw fi nga taxaw woote ñu ñëw Jakarta Band war na mën a doon acteur civique volontaire ku gën a gaaw ci élément de société bi mooy Jakarta moo gën a gaaw sax dawal ko oto yi ndax balaa kalandoo bi dugal troisième moom taal na ba départ ba agsi fi muy agsi ba pare donc lu xew ci xombal xam ngeen ko ku fi dugg ci saay-saay xam ngeen ko seen téléphone yi bu ngeen gisee kenn ku wàcc garage mel nak lu mu war lu mel woo leen commandant ci seen i biir ràññeente ngeen ku ci def naka su dul noonu puisque xeex fi dégg fan yële ba kenn ki jam morom ma loolu ci seen biir la am déet en ah, commandant ci seen biir la te loolu lépp nag ràññee woon ngeen ko avant kenn ki ci ñoom xàmmee woon naa ko ndax man damay ñëw gaara yenn saa yi dafa doxal am déet ah. ah, kenn ki ci ñoom xamaate woon naa ko ci lu doon jëfandikoo kon loolu war ngeen góor a góorgóorlu ba képp ku nekk ci seen biir di jëfandikoo yoon ngeen seppi ko sànni ko kon jakartaa yi bu ñu jógee ci seen plaque yi ak seen gilet yi waratu leen doon buntu saay-saay te yéen ci seen biir wala am kenn ku ci bokk di def saay-saay di ko naka sutul noonu beneen bi mooy sareet euh, yi leen leen wutal ay capote forte puisque au-delà sécurité Jakarta bi am na loo xam ne nii sareet yi amuñu ko boo tollee guddi mën nga leen bële gis oto mën naa dal seen kaw mu moto mën naa dal sa kaw keneen mënoon dal sa kaw merci capote forte yi mooy permettre à distance sareet bi mën a

kenn ku ci nekk da ngaa ragal boole sa morom ci biir kër gi dañoo ragal a boolante voisin yi dañuy ragal a boolante ci tàqaloo boutique dañuy war a boolante marché bi dañuy ragal a boolante ndax da nga yaakaar boo ko boolee day si ci mais boo ko boolee sax da ko dimbali ndax ëllëg di ko dimbali bu mu jubbantiku ba société bi daal mën a jaar boo ko boolee dangaa defar koo xam ne nii di naan agresseur boo ko boolee ba ñu seppi ko defar nga société bi ndax mën naa agressé koo xam ne dafa amoon njëriñ ci njaboot te bu ko agressé ëllëg yow mi ko boolewul tu es responsable kon bu kenn ragal boo gisee nit kuy def lu ñaaw ci koñ bi nga dem boole ko boo mënul dara ci kawam nga boole ko waa koñ bi boole ko waa gendarmerie bi ñëw këyit ko loolu il faut que nit ñi am culture délation police c'est vrai que dañu nit ci chef lieu de département yi day nekk le plus souvent yàlla dogal la fi toll am nañ doom ñoo xam ne ni ministre de l' intérieur la xombal la dëkk dina ci jël suñu kéem kàttan pour ko loolu bu fekkee mën naa nekk bu dimbali ci lu gaaw poste de police xombal am na jafe-jafe jafe-jafe bi mooy boo fa espace suuf jafe-jafe bi mooy jafe-jafe bâtiment bu mën a abriter yenn service li ñu am ci ay service yu bëgg ñëw déplacé wu ñëw installé wu xombal te amul yooyu fu leen dugal bu jeex am na ko fule sànq la problématique de l' emploi des jeunes li xëyu xëyu ndaw ñi eaux et forêts amaguñu fu ñu ah centre euh, euh, de réinsertion et de promotion sociale amaguñu fu ñu dugg amuñu des bâtiments capables d'abriter des services amna service yu bëri yoo xam ne bëgg nañoo installer xombol wa service national d'orientation et de l'emploi des jeunes dañu bëgg installer wu Khombole ñu and ak ñom ubbi fi ben bureau anti chômage mais wër nañ ba son à part ñaari bâtiment yo xamné ni nii ñu defaat ci xaalis bu bari pour mu xaw a tane tuuti amuñu fuñ len def loolu jafe-jafe la boo xam ne nii xombal da koy vivre li ñu bëgg rek fi mu toll mooy ñu amal ñu benn kër boo xam ne nii état da koy conventionné ñu jël yenn service yi dugal leen ci bépp service boo xam ne nii bëgg ngaa ak si ñëw dugal leen bala ñuy parce que bu ñu la accordé tey poste de police foog ñu tabax ko foog ñu équipé ko le temps ñu koy def sa prend du temps te mbir mi dafa jam te comme mënuñu am tout de suite poste de police kenn ku nekk yaa mën a doon policier bu dëkk bi beneen bi.

ñu instruire ko maire boy autorisé c'est ça garab bu dem ba dee ñun dañoo gëm benn affaire xëy na mën nga koo gor mais gor ko ci date bi day rey histoire u dëkk Bendéné ak xay ci histoire u xombal la bokk ndax buñ koy way sax danañ France Bendéné capitale angle voilà <laughs> donc comme Bendéné sunu histoire la bokk dañu ne bu ñuy autorisé ci daggum béntale bu ñu autorisé daggum béntale bopp dañ koy dagg ci dàpp ba mu jeex tànk danger bi ci branche yi la nekk danger bi ci daanu ku hauteur bi nga xam ne nii bu ngelaw lu ñëwee yóbbu ko mais mën nga koo dagg ci hauteur boo xam ne nii ngelaw du ko yóbbu lu bëri mën nañ ko cee def pour muy rappeler histoire u Xombol donc ñu jàpp loolu le temps que ñuy xool ak eaux et forêts ban hauteur lañ koy ni bu ñuy daggati garab bu mel ni béntale surtout Béntélé ñu xool ban atoor lañ koy dal permettre artistes qui ñu exprimer histoire xombol di fa continuer di fa dund. loolu nañu nous allons bu aller a baax a baax am nañ programme de reboisement euh, secrétaire municipal envoyé na ma démb benn devis pour ay gabion ak système d'arrosage Inshallah, incha allah bala ñuy Nous ci un grand programme de reboisement pour attirer xombol yu Nous avons jamono dafa toll de xam ne du doon dong bâtiment li tax dëkk bi di tawatul nawet bi di yéex a ñëw yooyu yëpp kom euh, koom bi di delluwaat ginnaaw ku bay du du du nangu ñàkk garab la kon dinañ am programme de regroupement bu mag te loolu dafay dugga ci circuit de de de de de sécurité am na ku ko wax sànq sûreté ak sécurité kaaraange ak wóoral nit ki pour mu sentir ni il est en sûreté maanaam fi mu dëkk wóor na il faut mu gis ne kaaraange mu ngi koy wër kaaraange gi am na loo xam dañ koy gis mu leer agent sécurité bu taxaw am na loo xam ne nit ñi seen bopp ñooy taxaw taxawaayu kaaraange ñu bàyyi soxna si wax na ko sànq waxante yi nga xam ne nii mën nañ koo waxante ndax ku la saaga tey ëllëg day évoluer agression day évoluer wax bu sedd la bu ñu yëkkati tey àgg ci saaga ku la dal na def nangam li lijjanti woo ko ëllëg koy def rek kenn du ko lijjanti kon violence verbale moy aboutir à une violence physique et moy aboutir à l'insécurité camion sur la voie publique aménagé nañ ba pare site bi nga xam ne ni moo leen war a abrité waroon nañoo commencé sax je crois qu'il y a quelques jours mais dafa am luñ ci wara def rek lo xam ni parewul barbelé bu ko wër lumière ba amna ay projecteurs yu fa nek ba pare gardien bi fa wara taxaw désigner nañ ko ba pare pour que camion qui nekk ci voie publique bi yëpp ak ci donc cette problématique de la sécurité liée à l'occupation de la voie publique par les camions ici peu de temps ce sera un vieux souvenir aménagé nañ ci ba projecteur yaa fa dañ bëgg sax ñu ci lu gaaw toilette ak ay étal yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy jaay nationale aménagement du site bi pare na ba pare d'ici fan yu néew camion yëpp dinañ dem foofu cette question de sécurité mën nañ ko commencer di indi ay ay ay saafara euh, beneen bi danaa wax na sànq les coups et blessures volontaires Oustaz Ibra Mbaye soulevé na un problème boo xam ne ni jéggi na suñu doole jéggi na suñu xam-xam jéggi na suñu compétence <laughs> donc moom je crois que ce n'est du doonul sax compétence état du Sénégal gën na koo C'est une question internationale ay affaire peine de mort ak yooyu vraiment mais il faut que ñu la pour conférence yi pour voir ak nit ñi wax ak ndaw yi animer. animé activité culturelle c'est vrai que nous avons beaucoup occupé wul mu occupé la te bu lay occupé na lay occupé day métti moy moy épanouissement ana fan lay dem pour pour pour fo xalé ak fo ñoo and bien que buñu ñu kenn du jaar ci am fo mais lolu mënul ñàkk buñu gisul fuñu ko défé rek fuñu dajalo football hein ah, espace yo xamni mën nañ ci di épanouir di théâtre am ay activité culturelle di rabat affaire yoyu buñu amul fuñu dajalo ci fiñuy laqato di fa dajalo fa la def li def fan yi amna na benn troupe théâtral bu fi nek di tourner benn film bu ñuy tuddee dunni dunni dunni ana nan la war a doon ñoom ñoo koy wax ci seen film théâtre am na xale yu bëri yu ñu fi jëlaale ci dëkk bi ñun ñu leen ciy gunge pour ñu tourner troupe théâtrale boobu bu ñu paree dañuy mettre en place benn troupe théâtrale pour activité culturelle yu bëri xale yi ñëw di leen ñu leen di gën di orienté foofu mën bañ leen seetaan ñu dem feneen moo tax activité culturelle yi am na ci solo loolu leneen li tamit am espace boo xam ne ñoo koy waxtaan ak ndaw ñi ben terrain synthétique boo xam ne xale yi dañ fa mën a dajale guddi ba bëccëg di fa football boo xam ne am euh, ay ay lumière yu leer nañ au lieu ñuy daw wuti feneen ñu daw wuti foofu cotiser football terrain synthétique demaat épanouissement yooyu bu dee bari ci milieu yi xale yi dañ mën a yóbbu seen xel euh, feneen occupation de la voie publique bi waxoon naa ko projet euh, Pontedera c'est vrai dañuy doog a agsi maturité pour mën a doxal pour mën a récupérer projet Pontedera pour animer waat ko pour mu mën a génne li muy génne ci koom sa prend un peu de temps ñu may ñu tuuti rek ñu observer ji bu baax ana lan lañ ci war a def ñaar moo ci mën a nekk mooy ñett bi moins mairie bi exploité ko mu jël ay GIE jeunes kenn ku ci nekk mu jox la parcelle nga exploité ko wala mu jël un exploitant privé signé ak moom convention moom mu exploité jël ndaw ñi ñuy liggéey ba pare produit yi jënd. ban lañ ci war a dox loolu foog ñu xam ko te bu dee teel bi tamit dafa am une procédure d'appel d'offres pour ñi nga xam ne dañ ko mën ñëpp ñu suñu soumissionné ñu jox leen ko ñoom ñu doxal ko ci ay néew ñu daal di koy euh, kii ñu daal di koy euh, évaluer waaw am na ko ko wax sànq rue yi nga xam ne dañ koo fermé doon nañ ko wax très souvent xombal doon nañ ci dëkk yoo xam ne ni boo taxawee ci digg dëkk bi mën ngaa xool sa bët ba sa bët génn dëkk bi te doo dal ci dara parce que c'était des rues qui se coupaient en angle droit ci digg dëkk bi ba ba ngay mais après il y a eu des lotissements périphériques qui ont été dañoo daggoon daggoon koñ yi ci ku tabax ba pare ci ku ñu attribué ba pare xombal am l'espace, problème de espace bis bu ñu amoon espace boo xam ne mën fa def ay lotissement yu ñun mais pour le moment comme amuñu il sera très difficile d'apporter des solutions parce que a des attributs qui ont commencé tabac. il sera très difficile

ñi nga xam ne dañoo génn seen mbedd ñu jox leen yeneen parcelle feneen ñu dem dëkk fa looloo yóbbu sama papa bi duggoy xay ba ñuy ànd ñu xomb la ñoo génne woon kër gi bu baax toj ko génne ko ah bay baba loolu loolu waaw